Dakar yi waxtaan ak ñun lu jëm ci législative yi wax yéeneem bi mu am surtout pour euh, liste parallèle yooyu amoon ñu fexe góor euh, góorgóorlu ba nit ñi dajawaat ndax euh, effectivement boo xoolee Macky Sall depuis 2012 le président élection yi fi jot am ci wàllu législative moo ko gagné donc yéeneem wan nañu ko fësal nañu ko ñun it ci suñu wàll parce que bannière Benno Bokk Yaakaar moo gagné Cambérène bëgg nañ consolider taxawaay boobu ci Cambérène ànd ceeg ñëpp ñun dynamique consol consensuelle la ñu demee ci Cambérène ndam li dañoo ànd booloo am ko donc na loolu lañ gën a bëgg gën a gën a yaatal muy intérêt wu Cambérène nag parce que ci biir conseil municipal bi nga xam ne ñu ngi koy représenté am na opposition euh, mais li ñu liggéey li ñuy nar liggéey ci biir maire bi duñ ci xool parti duñ ci xool couleur de parti donc euh, ci cadre defar la ñun dañoo bokk ci ñi gëm ni président Macky Sall am na programme intéressant mi ngi dérouler des programme pour l'intérêt du Sénégal et ci loolu lañu fas yéene nekk ci wetam accompagner ko incha allah. waaw Cambérène mi ngi xaar Cambérène mi ngi xaar parce que dañoo dem euh, élection gagné te ni ngeen ko jàngatee. ci biir Ndakaaru quatre commune ñoo échappé quatre commune ñoo gagné sur la bannière Benno Bokk Yaakaar donc Cambérène am na yaakaar ni euh, li kilifa gi doon wax ku def lu rëy am lu rëy am na yaakaar ni Cambérène war na mën a tirer profit de cette victoire qu'on a eu à l'élection euh, municipale donc dañuy xaar effectivement ci ay doomu Cambérène ñu am Euh, ay ay taxawaay parce que loolu mooy tax ñu gën a mën a servir Cambérène mais li nga xam ne aussi ay projet la Cambérène am ko lu jëm ci assainissement lu jëm suñu stade bi lu jëm ci lycée lu jëm ci quai de pêche lu jëm ci améliorer suñu environnement avec des voies secondaires ay voies d'accès loolu Cambérène soxla na ko te man euh, plaidé naa ko devant l'autorité xam naa ni dégg na ko te lu mu ci man incha allah dina ko jàpp donc ñu ngi interpellé waat encore une fois euh, di di di appelé waat l' attention mais di rappeler li nga xam ni ay soxla Cambérène la ñu war ci taxaw incha allah.